nag RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp gaynde yi ci wàllu football gi ak seen nag euh, diggante tey Burkina Faso ci kaw demi-finale Coupe d'Afrique ba ci Cameroun bu juróom-ñaari waxtu jotee lay doon incha allah Euh, RFM dina ci ànd ak yéen ci lépp luy xibaar tukkee foofeek sunuy ndaw euh, lu jëm ci wàllu xibaar bokk na ci it euh, hôpital ba ca Ourossogui ak tolluwaay ga fa liggéeykat yi banque yoo xëy lànkal liggéey ndax kenn ci ñoom di syndicaliste bu nu fa dàqee ak plainte ci ndoddam loolee lañu rafetluwul waral démb seen toogaanab ñaxtu politique géeg waa Yewwi Askan Wi ca Pikine coalition wàllu lañu fa demoon daal di taxawu ji waa wàllu Sénégal ndax ñoom ndama kii di maire ba nga xamante ni mooy maire sortant ba fa la ñu jàppul ne daal résultat yaak na defa recours di kalaame ci kanamu cour d'appel waaye maire ba Abdoulaye Timbo na mu leen jàppee mooy ñuy manipuler ka pexe rek waaye du mujj fenn wàllu xibaar bokk na ci coup d'état yu bari ci Afrique sowu jant am na ca ancien colonel bu nu ci waxtaanal moom jàpp na benn ni ñàkkum ndëgër laay ak kilifté dëgg ci larme yenn ci armée ci Afrique bokk na ci li ko waral waaye ci fenn fi ñàkk a yittewoo li nga xamante ni mooy soxla yi ñii di soldat si ci technique bi Abdoulaye Diop Assane Gueye Burkina Faso Sénégal demi-finale Coupe d'Afrique bu ngoonee juróom-ñaari waxtu lay doon du doon nag match bu yomb de milieu terrain bu gaynde ni waxe Joseph Lopi ñu teewlu ko le discours vous l'avez entendu. discours bi yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko dafa nekk discours boo xamante ne daf ñoom a ñaax pour ñu gën a concentré wu ci kan bi daf fekkoon ñu pare si match boo xamante ne joué ko bu baax te yaakaar naa ne loolu lañ bëggoon sax xam nañ ne am na ay match yu gën a jafe yu ne ci kanam comme ni ko entraîneur bi waxee équipe bi ñu nar a dajal équipe bu baax la équipe bu taxaw la bu mérité qualification te kat boo amee ay objectif da war a gën a wu ci li ngay def te avancé ndax am na match yu am importance ñu dese kon bi booloo la nekk benn mën a avancé ñun tamit bëgg nañ gagné bëgg nañoo jël coupe bi kon boog yaakaar naa ne ñun ñoo war a gën a farlu gën a ànd ak pas-pas. de faire ce qu'il faut sur le terrain comme on l'a montré sur le dernier match. Joseph Lopy kenn ci gaynde football yu Sénégal demi-finale bi Sénégal Burkina Faso ngoon bu juróom-ñaari waxtu jotee lay doon beneen demi-finale bi ëllëg lay doon euh, diggante Cameroun ak euh, Égypte RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaari minutes. xibaar bu masul am wala boog bu lëj lool naqaree laqarti ak lijjanti ci hopital bu Ourossogui euh, ndax ñi nga xamante ni ñooy euh, liggéeykat yi fa banque yoxo yi euh, seen digg ak directeur ba fa neexatul booba ak léegi weeru octobre léegi ak yokkuteeg ay primam di ndàmpaay lanu rafetluwul ñu ne warloon seen ak yëglu ba mu jural kenn ci seen responsable syndical ak dàq plante na ko noonu moo waral seen toogaanu ñaxtu démb leerali Ali Bandel ñan tension bi jéggi na dayoo ci centre hospitalier régional bu Ourossogui crise maanaam xiroo ngaayo bi nga xam nit octobre ba léegi mu ngi am tax na kon ba syndicaliste yi daal di yokk volume bu baax a baax ndax ñoom ñi lank kandaare yokkute gi ñu nemeeku ci prime bi ñu jagleel seen directeur leneen daf leen ci fekk si ndax seen njiit di secretaire général bi dañ ko yóbbu ci yoon ba déglu nañ ko ca gendarmerie laata kon ñu koy jëlee ci post ba mu ne as Thiam moo yore kàddu union bu Matam askan ñuy jël ñu nekk suñu seede xeex bi octobre la commencé ci biir intimidation dem na ba maanaam ki nga xam ne moo nekkoon sësi bi di secrétaire général bu union régionale bi daf ko jëlee sax ci postam maay yokku warul mën a nekk rek féete benn boor mu nekk di buur jubbum mi te ginnaaw loolu mu teg ci nag di wane ne faalewut kenn ndax dees ñëw na ba fii joxe ay instruction faalewut loolu waaye li am mooy ne ñun syndicat lañ ñu xeex dinañ ko xeex mu war yem ngir bokk bi daanaka système sanitaire diwaanu Batam bi yëpp moo nërmeelu la ko firndeel moo di mbooleem infirmier chef de post bawoo nañu ci mbooleem district sanitaire région bi. maanaam région de Matam yëpp taxaw na ci wàllu wér-gu-yaram te nag dafa commencé tey te nag lépp lu mu laaj bépp stratégie boo xam ne ni ëllëg war nañ koo def rek. gannaaw sitting bu mag bi ñoo amal ci óolu hôpital bu Ourossogui fas yéene nañu marché ci mbeddu Matam yi ci ndorteelu ay bés bi ñu dëkk ma la jéem nañoo jéem ngir amee tontu directeur bi ci boppam ni nekkul ca bureau dafa dafay bokk ca séminaire bi nga xamante ni ci ab message SMS bi mu ñu yónnee mu ngi ñuy xamal mu ngi jëm ci wàllu marché public mu nekkoon seen atango Ali Bandel ñaa fii ci Daaru Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel ñu waxtaanee euh, ba tey euh, wér yaram ak euh, lu ñeel jàngoro coronavirus njiital institut recherche santé surveillance épidémiologique di professeur Souleymane Boub moom xam xamle ci wàllu ay seen i gëstu ne jamono yi ginnaaw omicron bi am na ay sous nekki doomi jàngoro yoo xamante ni ñu ngi xeetoo yu sew sewaan ci euh, doomu jàngoro bi di Omicron euh, dañu koy dégluy leeralam moom professeur Souleymane Mboup euh, jamono yi ñu doon teewee ak jiite ndaje mënu jagleloon ci wàllu formation technicien ci wàllu laboratoire professeur Mboup ñu teew lu ko. variant bi ñuy wax Omicron. vraiment mooy variant bi nga xam ni moo dominé ci Sénégal euh, variant boobu nag léegi gisatuñu yeneen variant yi en tout cas ci ñun li ñuy signalé chaque semaine mais am na ay sous variant am na yeneen doomu jàngoro yu muy jur yu xaw a nuroog moom am na yoo xam ni sax àddina bii rek buñ ko commencé gis yàggul ñu ngi ciy gis mais li ñu ci gis moom taxaguñu ñuy wax ni yooyu daal yokk na fi donc loolu lañ mën a wax mais loolu ñu ngi koy continuer suivre parce que dafa am importance pour xam feebar bi mais li ñu mën a wax aussi mooy variant yi ñu gis yëpp benn bokk teg sa moroom fu mu fi jógee du beneen bi moo jur beneen bi dañu indépendant donc ça ne veut pas dire que omicron bi peut-être mooy jur variant bi ñëw xaj na feneen lay jógee ak yooyu mais surveiller leen dafa am importance ankay war na nekk njàqare parce que looloo tax ñuy def surveillance bi mais fi ñu ko gisee rek depuis deux semaines la te ministère bi jox nañ ko information yëpp mooy en tout cas proportion ni ñu ko gisee bougé gul tellement mais loolu aussi lu bëri xamaguñ ko ci ñu ngi koy topp mais aussi omicron li ko waral mooy li mu am particulier mooy doomu jàngoro boo xam ni moo gën a gaaw a wàllaate te loolu ñu ngi commencé xam lu tax parce que non seulement dafay aw yeneen yoon yoo xam ni yeneen yu doon ñu fa aw li ko yàlla may kattan boobu muy gën a wàll nit ñi dafay am kattan boo xam ni yenn ci wàllu yaram wi mënu fa dugg lu bëri looloo tax cas grave yi ak décès ak yooyu yëpp wàññeeku. mu nekkoon professeur Souleymane Mboup ay leeralam ñeel mu jàngoro bi gën a law ci réew mi jamono yi omicron ak yu xeetoog moom ne yu sew sewaan di sous variant ak euh, li nga xamante ni mooy lu ñu ci nemmeeku nekk euh, ñàkk euh, soxoraay macha allah terewul ñu wéyal moytu gi ba tey rek masque yeeg ñàkk yeeg yeneen étudiants yu école nationale travailleurs sociaux spécialisés yi ñoo yëglu ñoom ay weer a ngi liggéey jàngunu dañoo tëj école ba ñu ne directeur bi nag xibaar ya mu ca joxe ci ne mooy li waral tëjuk l'école bi jëm ci ne dañuy jàll ci système LMD aw kese la loolee ñoom jàppuñ ne war na doon raison ba ca topp mooy wàllu yorin mooy jàppuñ ne it bu sell la ñeel daara ja Salif Kebe la nu ci àndal moo jite seen comité exécutif yooyu étudiants yu école nationale travailleurs sociaux spécialisés ñu teewlu ko Jean Paul Ndour. directeur dafa ne dañuy basculer ci système LMD jóge ci système classique loolu moo waral tey directeur basculement boobu moo waral tey mu teg école depuis novembre ba léegi donc nit yi jàll concours ñenn ñi ay professionnels lañ doon jàngale wala doon liggéey leneen ñu bàyyi seen liggéey boobu parce que dañoo jàll concours ñëw bëgg a def seen formation formation bi nga xam ne seen i droit la tëj école parce que dafa bëgg a dem forcément si système LMD alors non seulement étudiants yi nanguwuñu parce que bëgguñu ko parce que xam nañ ni euh, LMD diplôme bi mu leen di andil ak ñoom diplôme bi ñu am actuellement diplôme bi actuellement moom moo ko ëpp doole au niveau de la fonction publique directeur dépense yi def durant ces deux ans de magistère la da ko def dans l'illégalité comité de gestion moom mooy valider les dépenses de l'école sa gestion bi nga xam te c'est antidémocratique moom lay bëgg nëbb pour forcément ñu dem ci système LMD parce que en réalité bu ñu demee ci système LMD organes yi day changé moom day ñoo nekk directeur général du nekk un directeur simple nekk directeur général donc bu organes yi changé mën na bañ a rendre compte des deux années de gestion ki nga xam te ne moom moo jiitu année bi ñu nekk ni pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen ñu waxtaanee politique ak lu ñeel Pikine coalition wallu Sénégal ba tey jii ñoom ànduñu ci ni résultat yi tëddee foofee jox ndam li Benno Bokk Yaakaar li leader yu coalition Yewwi Askan Wi demoon ci seen wet ak ak activiste ngir ak jàppale ci Cedda Caaroy Kaw démb ci ngoon la woon ngir kon waa coalition euh, wàllu euh, Sénégal ak recours bi nga xamante ni mooy ak clamé nu def ci kanamu euh, cour d'appel Ousmane Sonko Khalifa Sall Déthié Fall ak Guy Marius Sagna ñoom wooteeg mobilisation générale ngir ñu ne daal di éségal lu jëm ci wàllu lanu jàppee pexe yi ñetti nguur jamono yu benn Bokk Yaakaar ak ki faluwaat foofe Abdoulaye Timbo ci pikin gisee seen toogaay yooyu ne ay ñuy manipuler ko wuti pexe rek waaye du mujj fenn ndongo ka Guy Marius Sagna di rëgët mbooloo mi nekkee ci ëttu centre socioculturel Saliou Ndir bu jidde Caaroy kaw àndal bi ak yeneen leader yu coalition yeewi askan wi ñëw nag ci Pikine ngir jàppale kii di candidat bu wallu senegal ci ville bu pikin Cheikh Dieng mi ni nag ndam li mu am ci kaw Ablaye Timbo moom la nguur gi bëgg a foqati. ay avocat yu Cheikh Dieng daal di dugal recours ca cour d'appel bu Ndakaaru waaye kii di njiitu Pastef ni yëf yi nag warul nekk kese bataille judiciaire Ousmane Sonko di woo nag ngir nit ñi daal di mobiliser wu. opposition mun na xalaat ñu naan Ablaye Timbo moo jël Pikine te boobu jamono docteur Cheikh nekk fi te ne ci opposition xeex bi ñuy xeex stratégie da cee bokk moo tax dañuy wax képp ku ànd ak ñun wala ngay suñu sympathisant xeex bi sa xeex la. waa jeunesse bu Benno Bokk Yaakaar bu jiddee Caaroy kaw daal day artu nag jëmale ci Cheikh Dieng as gay moo yore seen kàddu. ki xamante ne moo nekk le docteur Cheikh Dieng Benno Bokk Yaakaar fii ci département Pikine ñu gagné ko ci écart mille neuf fii ci sunu ñu gagné ko ci neuf fois kon bu taxawee di contexte dinañ ko laaj ci yan commune la fi gagné. Isaaxa Diop mi nu tabaat yees ci boppu maire bu Pikine Est tamit daal di yëkkati kàddu yu nu mel mu bëgg nag kii di Cheikh Dieng daal di nangu ni nag dañ koo gagné ci yële élection. foofu ay magistrat ñoo fa ne tribunal ñoo ñoo fay liggéey faruñu fenn bi ñu compilé dañoo gis ne avance bi c'est plus de 1800 loolu kenn mënu ko naxaate donc nañu nangu rek ne Benno Bokk Yaakaar moo gagné la ville de Pikine avec le maire Ablaye Thimbo. cour d'appel bu Ndakaaru daal di bi nga xamante ni moom la avocat yu Cheikh jee nag daal di dugal ndonga ka jidd caaroy kaw rajo Futur Media. jërëjëf ndongo ñu jàll wutali eh, Taïba Ndiaye eh, ca diwaanu Thiès foofee eh, ba tey ji coowal élection candidat coalition benn Bokk Yaakaar gënu fa daal di daaneel fanweeri at ginnaaw si di alilo moom moo àndul ca résultat yi waral ak kalaame gu mu def di recours ci kanamu cour d'appel tribunal bu diwaanu Thiès moom maire bi fégal nag ki aaye bees di Assane Ndiaye daf ni du lenn lu may pexe yi gàkkal ndamam waaye xam na ko Assane ñaari téeméeri voix ak ñeent fukk ak juróom-ñett mam astukan élection locale ci commune Taïba Ndiaye Ndiaw ma ngay wéy di desi xambin ba tey ndax kii fi nekkoon maire di Alelo nangoogul yële résultat dem bay déposer recours ci cour d'appel bu tribunal Thiès maire bu bees bi di wax ni moom moo gañe élection yi gannaaw résultat yi nga xamante ni commission de recensement des votes bu wan joxe na ko Assane Ndiaye. Alelo nag moo xam. li tax muy defu recours ak li tax wootewul kon ñoo ngi toog di ko déglu. li ma dégg ñuy wax ñii nee na dañoo dépouiller au delà de minuit ñii nee na dañoo voté au delà de minuit dépouillement bi de mën na dépasser minuit waaye 33 PV yi ñu liir bureau de vote yi am ci commune bu Taïba Ndiaye amul benn vote boo xam ne nii àgg na minuit man li ma am man ñaari junni la ak fukk ak juróom aali lu am junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ma rawee ko ñaar téeméeri baat ak ñeent fukk ak juróom-ñett mu leer nañ tribunal Tivaouane commission de recensement ñoo génne résultat yooyu amul benn contestation kon yaakaar naa ni raw nañ ko wala amee. Assane Ndiaye di ñaawlu attitude bi nga xamante ni candidat Benno Bokk Yaakaar bi am na ko bu nu sukkandikoo ci moom deful lu dul bëgg a ñaawal victoire am bile. recours bi man damay xaar ñu notifié ma ko ndax kenn andiwul guma kayit ni aliloo lii lay contesté ci sa victoire kon nag ñoo ngi toog di ko déglu juróom-ñeenti candidat juróom-ñaar yëpp bu ñu benn point de presse wax ni Assane Ndiaye gagné na haut la main les élections de la commune de Taïba moom itam Aliou Lo war na cee mën a rafet. commune Taïba Ndiaye di wéy ba tey ci coowal élection gox-goxaan yi ndax ki fi nekkoon maire fanweeri at ak ñaar mënul wanaasu defetam bi ku bees ki moom di xaar kàddu gu mucc bu cour d'appel tribunal. bu Thiès maam Astou Kane fii ci Taïba Ndiaye rajo Futur Média. jërëjëf maam Astou fexe nañ jokkoo yooni yoon ak euh, maire sortant bi di Alelo mujjul antu ñu waxtaanee coup d'état yi ci Afrique soowu jant ga ca mujj euh, di gañu nasoon démb ca Guinée Bissau donte mujjul antu euh, amuñu ca ndam ña nasoon fu xarti nguur ga foofee ci loxoy sëñ Mballo ginnaaw si la génn xam leen ni yëf ya daal dina colonel bu nu waxtaanal moom dafa gis ne benn léeg-léeg yenn ci l'armée yu Afrique dafay ñàkk kilifteef dëgg ba ci topp mooy dañ dul baxeel nag soxla yi takk der yi seen wàllu bopp jo maroon Mali Guinée Conakry Burkina Faso bokk jàngaro mooy ay militaire ñu nekk ca boppu nguur gi jamono jii jàngaro jooju nag mu naroon na law ba fële ca Guinée Bissau mbir mi jotul antu lan moo waral réew yu bari yi nga xamante ne ñu nekk ca Afrique de l'Ouest ay coup d'état fi am colonel bi di du sal jamono ji mu nga ca retraite xamle ne bu armee amee leadership bu dëgër mën nañu ko am. armée républicaine bi ñu koy wax ñu gis ko ci. leneen li leneen li tamit mooy boo xoolee euh, euh, sol soldat waa armée gine Bissau da nga gis ne ah. seen seen seen militaires yi seen kii yi subordonnés yi maanaam ñi nga xam ne dañu xaw a nekk suuf booy seet dañoo xaw a euh, maanaam daal dañu ñàkk équipement ñàkk formation. voilà lu bëri loo xam ne Euh, ba ci salaire yi da dafa dafa néewoon. ñàkk a fulal jafe-jafe askan wi. mën na indi jafe-jafe yu mel nii réew yu bari nga xamante nag ñoo nga dund mbirum coup d'état waa Africtiviste li ñu gis mooy réew yooyu ci dalu gannaaw rek la nekk Cheikh Fall jiite ay kuréelu blogueur ak ñu yëngu ci mbirum internet ngir fexe saxal démocratie ndax fu am instabilité politique am coup d'état relation économique yi ak relation bilatéral yi tax développement di jëm kanam day day day day yeex day gën a day gën a suufee mais beneen bi tamit mooy investissement bi tax nit ñi mën a gis seen bopp mu am ay emploi dañ koy wàññi ndax fu am arme am coupe-feu am instabilité politique kenn du fa def sa xaalis ngir dafa créer ay société wala dafa créer loo xam te ni dana mën a amiñ di xëy suba ak ngoon te loolu fu am rek ci réew day suux suux suufeel e, e, économie bi. kañ la coup d'état yi di jeex ci réew yi. mbir mi nag mu nga tàmbale di jaaxale ñu bari waa CEDEAO moom dinañu faral di ñaawlu li xew communauté internationale mel ni dañu nekk fu sori di xool mbir mi. jërëjëf Jo Maroon incha allah ci kanam tuuti seen émission pencoo gi ak RFM dinañu wi ci wàllu coup d'état yi ci Afrique sowu waaye lan mooy ëllëgu démocratie ci yooyu réew ak professeur Penda Mbow historienne lan nu ci àndal incha jamono yi 8h16 a jot. RFM dal leen ak jàmm Sénégal Burkina Faso demi-finale bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ni ubbi woon nañu ko juróom-ñeenti fan ci weeru janvier wile weesu ci réew mi di na Aliou Cissé mi tàggat gaynde yu Sénégal ni jongante boobu ndam rek la ca bëgg ndax moom fa mu sànni gëtëm moom mooy yegg ca final waaye tamit jox réewum Sénégal kubam bu njëkk Soda Thiam ma nga woon ca conférence de presse am. Burkina Faso Sénégal di ab match boo xam ni ñëpp ñu ngi koy xaarandi war a dox nag ci diggante ñaari dëkk yoo xamante ni dañoo bëgg a def seen kem kattan ba jàll ci ngir mën a am seen tiitre continental gu njëkk équipe bu burkinabé bi nag wane na la mu mënee loolu moom moo tax kay tàggat gaynde Sénégal yi tax la koy xaar moom ak i joueur am mooy que ci diggante ñaari équipe yoo xam ne mën nañu wax ni que ci début compétition bi amoon nañu quelque difficultés tey euh, ñuy xeex di liggéey ba egg demi-finale mën naa wax ni que euh, match bu bu am solo la. Euh, Burkina Faso ak Sénégal xam ngeen seen seen jàkkaarloo souvent ay match yu yu intéressant la match yu yu am solo la ko ni ma ko sax waxee sànq mais en tout cas ñu ngi koy waajal bu baax a a baax. la bëgg a gagné pour askanam ndax situation bi seen dëkk nekkee waaye Sénégal itam bëgg na romb li ngir daal di am trophée gu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations Aliou Cissé moo ni waxee. tey lu xew Burkina ñu ngi koy regretté bu baax di ñaan yàlla jàmm ñëw fa mais motivation bu ñu mënta am tamit foog naa ñun Sénégal ñun ñoo la leen ëpp motivation euh, tey suñu suñu objectif depuis début CAN bi ba léegi mooy dem manko dem wuti ndam li ci yoon boobu nañ nekk donc euh, mën naa wax ni que motivation Burkina Faso bi normal na mais tey joueur yu ma yor ak man mii di wax ak yéen motivation bu ñu yor tey itam motivation bu am solo la. jongante googee nag ñeel demi final gu njëkk bu fanweer ñetteelu édition kan giile mënees na noo njort ni du yomb ne ñaari équipe yépp wane xadar mu di jongante nag boo xamante ni ci àllarba gii lañ koy amal bu 19h GMT jotee ca stade Ahmadou Ahid Diop mu ne woon Sode Thiam fii ci Yaoundé ngir radio Futur Média. beneen ndaw bu radio Futur Média ba nekk ca Cameroun moom fekkee na ndaje ak taskatu xibaar bu entraîneur bu Burkina Faso naam su fekkee jàpp na ni ñi gaynde Sénégal ñoom ñooy favori yi équipe am dina def kamtelaayu kàttanam ngir jël ndam ñi ndax ñoom it la ñu bëgg moom mooy bind seen histoire. suñu xoolee jaar-jaaru Sénégal ak joueur yi mu am dafa mel ni gaynde yi ñoo jiitu étalon yi waaye loolu taxul seen gardien bi am yaakaar lool ci match bi Hervé Kofi. voilà si on en demi-finale aujourd'hui c'est c'est tey du hasard moo tax suñu jaar-jaar man am naa ci confiance. bëgg nañu def marche bu baax donte sax xam nañu dina jafe nañ jëm entraîné tey ci ngoon ngir mu des si sunu objectif yi suba dinañ xam nu muy demee waaye xam nañ lan moo ñu xaar parce que xam nañu Sénégal équipe bu mag la nañ xam nu ñu duggee ci match bi. On on saura comment aborder le match demain. Burkina Faso egg ci demi-finale yi te kenn xaaru ko woon moo tax seen sélectionneur bi léegi am yeneen bébét yu gën a kawe kamu malu. est-ce que euh, je pense que j'ai atteint mes ndax jàpp naa ni sama mbébét yi matal naa ko waaw. su fekkee ne euh, dañoo sukkandikoo ci sama contrat. waaye man en tant que compétiteur yaakaar naa ne soo tolloo fii waratoo am uh, limite li ma bëgg mooy gagner trophée bi pare nañu pour def lépp ngir uh, am li ñu bëgg. décider à vendre chèrement pour aller au bout ci kanamu Sénégal ci alarba bi Burkina Faso dina am capitaine am bi di Bertrand Traoré mu bokkuloon ci huitième de finale bi ndax gaañu gaañu bu mu amoon Youssouf Bodian stade ay Ahidjo bu Yaoundé. RFM Sénégal Burkina Faso tey jii lay doon kon bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ca stade ay Ahidjo doomu Éthiopie bi di Bamlak Tessema moom mooy arbitre boobu jangante moom sax moom moo arbitré woon jongante bi doxoon diggante Sénégal ak Guinée ci phase de poule yu bi Coupe d'Afrique des Nations ak lu mante am supporters yu Sénégal ñoom ba léegi la ñu gën di ànd ak gaynde gayndeyu Sénégal ñoom sax ci jamono ji seen xel dafa dal lool ndax nee nañu li nga xam ni moom la gone yi football ak choix tactique yi nga xam ni moom la Aliou Cissé di def tax nañu am ci yaakaar Omar Mbow dajeek ñoom ca Géejawaay. yàlla na leen yàlla taxaw. ba ñu bi am na lu bëri lu soppeeku ci ni gaynde yi di footballé ci bu phase de poule jeexee ba léegi. li mu defoon keroog ci quart finale bi mu ñëw confirmer ko parce que Sénégal ñëpp dañ doon jàpp ni bon ni muy joué baaxul équipe bu ndaw la. mais comme demee na nii moment yi nii xam nga dañuy xaar mu. bu ñu defee comme ni ñu def quart de finale yi. je pense que le reste dina yomb. ñu ngi koy waajal nag ñu di leen ñaanal di leen tout le peuple sénégalais est derrière eux. mu doon ab équipe bi nga xamante ni du bàyyee dara nekk itam di dawal bal bi tax nag sénégalais yu bëri yi mel ni dañoo geddoon équipe bi ñëwaat. Sénégal. ndam rek lañu soxla ndam lañu wax ñun ci kaw ci kanam ci lu baax waaw cette fois-ci c'est la victoire victoire lañu bëgg yi les sénégalais xam nañu léegi nag ne Aliou Cissé nekkatul coach bi nga xamante ni day daal di dooleel poulain am yi rek mën na itam soppi match di xamle Pambodj. de donner du crédit à Aliou Cissé. ce que je dis toujours l'ingratitude du métier d'entraîneur. si c'est ok c'est les joueurs si c'est pas bon c'est l'entraîneur donc ça c'est de l'ingratitude. un coach gagnant même pas. c'est un coaching en général. fi mu ne nii nag yaakaar bi rëy lool ci Sénégalais yi waaye daal nañu moytu bu baax adversaire bi. Xuliana bi artiste rappeur. waaw Burkina Faso ragaluma ko mais lenn laa koy tiital mooy est-ce dinañ ko jox cër bi war. parce que dañ ko war a jox cër. ak lu mën a am dañ ko war a jox cër football ak moom gañe ko si biir match bi quoi. comme ni mu defee woon ci atum 2019 Sénégal bokk ci carré daas bi. yamul ci loolu kot ndaxte Sadio Mané ak ñi mu àndal ne bii pa coupe bi rek la ñu bëgg. faire bloc autour de l'équipe ñaanal leen ñaax leen. RFM waaye Omar Mbow. ñaareelu demi-finale bi ëllëg lañ koy amal bu 19h jotee mu war a dox diggante Cameroun. ak ñii di waa Égypte ñu jeexale ko ba tey ci wàllug football ak ca France fukk ak ñeenteelu ko bëccëg gi ci wàllug Ligue 1 ñii di waa Lyon ñoom dañoo daan waa Marseille naam sax su fekkee ni ñii di Marseille yi ñoom ñoo leen jiitoo woon benn bal ci dara laataa ñu yegg ci mitan bi bi ñu naanee ndox ba dellu si la ñii di waa Lyon dugal seen ñaari but jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem ci xibaari tàggat yaram jërëjëf xaaj ndate dinañu àndaat ak yow ci kanam tuuti bul sori euh, ngir wàllu culture gi xaaj ndate ancien euh, gardien de but la ci Pire carrière bi yàggul rek Ablaye Diop ñu ànd kon maase ñaanal suñu gaynde yi ngoon 19h ci pàttali euh, Sénégal Burkina demi-finale Coupe d'Afrique chronique culture bi ak xaaj ndate Diop. dal leen ak jàmm. musiku rumba mooy lañ doon waxtaane ci édition bu mujj bu salon journalistique ndaje yi nga xam ni waa Goethe Institut ñoom ñoo ko tëgg musique boobu nga xam ni sax dañu koy tëgg ca ñaari Congo yi di kongo Brazza ak kongo Kinshasa nekk na ci jamono ji musique boo xam ne nii boole nañ ko ci moomeelu àdduna wërngal këpp la ñuy duppee patrimoine immatériel de l'humanité ci jamono ji nag lañ ca bëgg moom mooy fexe ba ndaw ñi gën a xam ak gën a dund ci musique boobu Anna Rocha tàmbale orchestre OK ba tey ji euh, tokos ak euh, artiste bi ji euh, Fally Ipupa gën ko fësal lii di rumba congolaise am na ay coppite yu bëri moo xam ci wàllu rythme bi wala sax ci wàllu texte yi mu di jàngatu euh, taskatu xibaar bi di Paul Soni Benga nekkoon ay jamono directeur général DRTV di ab chaîne de télévision privée ca Congo. fi mu toll nii li gone yi bëgg mooy li nga xam ne da leen di fecculoo ci boîte de nuit te producteur wu musique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci marché bi ñoom xam nañ loolu bu baax a baax xam nañ ne tokos bi day fay te loolu mën na la indilaat xaalis bu bëri. coppite yu bëri yooyu lee nag taxul UNESCO daal di bind rumba congolaise bi ci liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité benn at gannaaw dogal boobee léegi nag nguru ñaari Congo yi di Congo Kinshasa ak kongo Brazza ñoo war a jëf ci gis gi Paul Soni Benga ñaari Congo yi bu ñu booloo ngir euh, demandoo ci UNESCO dañ bëggoon euh, jox beneen dimension rumba congolaise léegi nag euh, dañu war a liggéey au niveau local maanaam fële ca Congo ngir euh, jox musique bi xar kanam bu gën a rafet ndaxte loolu jeune artistes yi dañ ko yitewoo ci session bu mujj soxal euh, ndaje salon journalistique réalisateuru film documentaire bi di euh, Nando Edo le dernier des bantous de la capitale daal dina leeral itam li tax mu def boobee film Paul Soni Benga nee na faw ñu def ab taxaw seetlu delloo njukkal itam ay mag yi nga xam ne marqué nañ lool seeni jamono. artiste reggae man bi di Dred Maxi di daje ak taskatu xibaar yi alxames ñetti fan ci weeru ko février lool nag gannaaw albumam bu yees bi nga xam ni moom la duppee Soldier di ab album boo xam ne nii lu toll ci fukk ak juróom ci ay titre ñoom ñoo ca nekk artiste bi way ci ci anglais ci français ak ci séeréer wiri wiri benn ci tube boobu mu di ab reprise morsob yu sunduur jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen gaam Opalia ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf l'observateur ak rakkam record ñoo bokk lu ñu yeewoo bokkit nu ñu yeewoo maxub demi-finale bi Sénégal wala football ak Burkina Faso tey jii ci ngoon ci la ñu xëy bi l'observateur li mu bind moo di étalon yu Burkina Faso yi nañu leen étalé ñadd leen ba ñu tàlli ñareet duma leen jàll final ci kaw loolu l'observateur mi ngi dànkaafu suuru Sénégal yi ngir ñu moytu bal arrêté yi moytu carton yi ndax suwar yu ci mel ne Nampalys Mendy Pape Gueye Idrissa Gana Gueye ak Saliou ku ci nekk ci ñoom jël ngëb carton keroog ba ñuy football quart de finale yi ak Guinée équatoriale yéene bi nañu ñoom gaynde yooyee carton équipe nationale bu Sénégal di Aliou di wax ci xët mu njëkk record yéen a kaay ne dañoo bëgg a finalu kàllu malum mi tàggat waa Burkina Faso di ko xamal ci wet ga ne xew-xew yi ñu bàyyi ci suñu ginnaaw mu di événement yi am ci Burkina Faso bokk na ci li ñuy dojji ngir ñu dem ba jeex dem ba jeex gàddu ndam li journalisé ko nee nañu loolee rek la ñuy xaar ci Aliou Cissé ak i gayndeem tey ci ngoon ndam rek noonee la ko yéen bi bindee ci xëtam mu njëkk ba dolli ñu ci ne kii di Aliou Cissé mi ngi séentu lu mu jar rek dinañu ko def ngir am étoile maanaam jël coupe Hervé Kofi mooy capitaine bu Burkina Faso nee na dëgg la Sénégal am na ay attaquant yu taqe waaye ñu am nañu ay défenseurs yu mag Sud du Quotidien nañu demi-finale Coupe d'Afrique Cameroun 2021 Burkina Faso tey ci timis la 19h gaynde yi ñoo ngi piste étalon yi sursoi nañu leen rekk leen ca mën a génne mooy deewoo ko def ko yëfi jàmbaar dëgg suwe na ay vrai guerrier ay guerrier dëgg la réew mi soxla ngir lijjanti lëj-lëj li ci njàng mi la nañu fi mu nekk day ñi séq njàng meek njàngale mi jaaxle nañu yéenekaay bi ne nañu élèves yaa fa génnoon di ñi séq njàngameek njàngale mi ngir ñu dimbali leen ba ñu mën a dem jàngi ci ni mu war jeexal seenu programme ci jamono joojee la yéenekaay nañu ñoom Cheikh Mbow di waa COSYDEP li ñu jàpp ne moo mën a saafara mbir yi moo di état beeg syndicat jàngalekat yi toog bokk genn basan gi péncoo coow li jëwriñ gi ñu dénk wàllu njàngameek njàngale mi di Mamadou Talla ministre éducation nationale sursoit mi ngi bi njàng meeg def pression fépp ci réew mi ngir bëgg dellu ci l'école yi jàngi école privée yi mer bu futt ndax li ñu leen boole ci grève bi te seen yoon nekku ci jàngalekat ñoom fa ñu ngànk fa la ñu ba léegi di xaar nag daje bi ñu war a dajeek état bi chef de l'état di Macky Sall l'observateur nee nañu moom ma nga ca politique ba li mu bëgg moo di gàddu mbir yi doxalal ko boppam convoqué na ay ministre am tey ji ci suba ni ñu ko baaxoo ci ndajam conseil des ministres bari na ci ñoom ñu ko jiñ seen mandataire ba kii di Bonu Ensemble la ne lu jiin njaaga mooy njaak Wandifa Dramé di membre fondateur APR ca Casamance moo ko wax wax ne Bonu Ensemble moo am score Benno Bokk Yaakaar bi gën a bon ci réew mi yëpp kese la am Wandifa Dramé ne te loolee bettu ñu ñi dëkk Casamance ndax Bonu Ensemble defi ñukk Ousmane Sonko mi neewoon ab adversaire doon defanteeg Doudou Ka ca Kaolack mu ngay bëgg a xorom yëral xët mooy ñu annuler résultat ñetti bureau de vote yu nekk ca Kaolack lu tax mu ne ca Kaolack am na fab centre boo xam ne sëriñ buub dafa yóbbu woon ay xaj nit ñi ragal gu ñu ragaloon xaj yi moo tax ñemewu ñoo dem ca centre ba ngir woote seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi <laughs> Mamadou Mouhamed Ndiaye sëriñ nag nitu daara la xanaa <laughs> yoroon ay berger allemand ñu koy gërëm Mouhamed di leen gërëm mbokk yi xibaar la woon ak RFM Sénégal ak ak Burkina Faso daanaka mooy xibaar bi gën a fës gën a yitteel ñëpp jamono yi ngoon 19 la incha allah di leen ñaanal ndamal jàmm ngir final bi ngir coupe bi ñoom équipe beeg seen entraîneur Aliou Cissé hôpital Ourossogui ak sooxe jamono yi foofee liggéeykat ya fa ñoo àndul ci doxalin wi rawatina kenn ci responsable syndical yu ñu fa daal di dàqee tegab plainte ci la eh, ginnaaw bi nga xamante ni fa rawatina indemnité ak prime yi nga xamante octobre léegi ñu ne directeur général hôpital ba mu nga koy di fayiku Yewwi Askan Wi ca Pikine ñoom euh, daal di demoon euh, taxawu ji waa coalition wàllu Sénégal euh, ci seen digg ak waa benn bokk yaakaar ga fa ci mairie ville danoo gis ne ñoom ñooy ñi gàddu ndam li résultat yaak na mu tëddee feeñul ci liste yi loolee nag waa benn bokk yaakaar jàppewuñ ko lu may ay pexe ak ci manipulation waaye gisuñ ne daal dina am mucc lu ci mun di am def nañ ñoom recours ca kanamu tribunal cour d'appel Euh, Afrique sowu jant ak coup d'état yu takkar naase yi fii waxtaan nañu ci RFM ak ancien colonel bu gis ne benn bokk na ca lenn ci l'armée ci Afrique dañoo amul leadership yu mat ba ca topp dañ dul baax xel soxla ak coonoog nekkinu soldat si rawatina ñi faree suuf dinañ wéyal waxtaan woowu sax ñeel coup d'état yeeg Afrique ak avenir démocratie ci kanam tuuti lay doon ci penco gi RFM ak historienne bi professeur